ku xool le président Pape Diop muy tête de la coalition bokk gis-gis liggéey xool sama jëmm ji xool le président Alioune Sow ñun yoruñu coalition boo xam ne état def ñuy manipuler wala di ñu jënd ñun buñ doon jaay amuñu njëg kenn mooy deal te bis bu ko weddee suba bu ma xëyee dinaa def conférence de presse affronté ko muy Ousmane Sonko. ndax moom moo wax ak le président Macky Sall trois fois au téléphone première fois bi mu wax ak Macky Sall mooy 2019 bi Macky Sall jëlee pouvoir bi bi muy wax ak moom ay kilifa diine ñoo def ñoo ko facilité loolu mu wax ak Macky Sall moo waral bi ñu paree ci élection yi contesté wul victoire président Macky Sall jokkoo bi mu jokkoo ak moom benn ambassade moo dox ci digganteem ak président Macky Sall mu wax ak moom muy dossier aji sar bi troisième bi mooy gis ngeen ne récemment balaa mu doon def conférence de presse ci affaire Falémé bi wax naa ak le président Macky Sall yónnee ko ojo audio yi fekk ay fan yi néew askanu Sénégal dinañ ko gis ma jàpp nag ne Sénégal mérité wul ñu am justice boo xam ne dañ koy salfaañoo ba ku ñu neex jàpp ku ñu neex bay parce que Ousmane Sonko dafa ñakkataan jël moroomu doomam ruux ko baaraam ko ñu teem ko biyal dañ ko war a àtte dama ne su loolu weesoo moom duma weddi parce que xam na ne la may wax dëgg la bi mu mujjee waxaat ak président Macky Sall mooy 72 heures balaay conseil constitutionnel di publier les listes conseil constitutionnel yenn journalistes yi laay xool parce que li may wax c'est très important balaay conseil constitutionnel di wane li moom xamoon na résultat yi parce que waxtaan ne seeg président Macky Sall ba pare la preuve def ko ne danaa wax ak askanu Sénégal ñu noppi dinaa wax ak askanu Sénégal ñu dal danaa wax ak askanu Sénégal bu verdict conseil constitutionnel bi génne ndaw Sénégal bi nga xamante ne consci conscientiser naa leen si ay sos dañañu toog danañu yem moo waral bu ngeen di seetlu balaay constitution conseil constitutionnel bi génne verdict bi Ousmane Sonko Ziguinchor la toog jox président Macky Sall ay garanti te garantie bi lenn la ko bëggoon weccool ne ko suma sañoon affaire Adji Sarr bi nga teg ko si suuf pour firndeel la ko su ma raccroché sama téléphone danaa def live wax ak askanu Sénégal ne ñoom def nañu erreur waa yeewi askan bi que erreur bi yëpp si ñoom la liste proportionnelle bi mu jiite dañ koy invalider loolu ab dil la boo xamante ne moom moo ko def ak le président Macky Sall may laaj tey kooku taxaw dil si coalition yeewi askan bi dil si kanamu ndaw ñi nga xamante ne ñoo ko topp parce que xamuñu ne waa ji saay-saay la koo xamante ne dil na jaay seen coalition yeewu askan bi est-ce que kooku tey war nañu jox ñun moçon de leçon de morale politique fii ñëpp xam nañ ne ñun ba liggéey jotee dañoo liggéey ba investir jotee dañoo investir ba tekki jotee dañoo tekki donc suñu bëggoon dem coalition Benno Bokk Yaakaar gëm naa ni duñu créer parti politique comme nag réew mi fii la toll wax pour wax la maa ngi xaar suba Ousmane Sonko tontu ma ma génnee preuve yi nga xamante ne moom laa ko tumal te li may wax nii dëgg gu man bi may politique ba léegi bi may politique ba léegi mësuma wax ñu weddi ma te du ma musa weddi benn dealer moo am benn trompeur moo am benn violeur moo am benn criminel moo am muy association Yewwi Askan bi may ñaan askanu senegal jot na ñu àndandoo soppi xaru kar xaru kanamu assemblée nationale loolu moo waral ñu tànn suñu njiit muy njiit bu jara àllandal njiit bu mën a taxaw pour sonnal askanu Sénégal muy njiit goo xam ne yaram wan na ko dalam wan na ko bëgg réewam wane na ko la preuve coalition yi bëri nañu mais le président Pape Diop a parcouru tout le Sénégal des profondeurs kii moo bëgg askanu Sénégal may ñaan jox ngeen président Macky Sall mu jiita réew mi ngeen jël Thiès jox ko yeewi askan bi ba ndimbal jotee dañ leen wan gannaaw may ñaan département wu Thiès ngeen essayer la coalition bokk gis-gis liggéey bi nga xamante ne ñun service su askanu Thiès ak département lañu la ñu nekkal fasee na ñu nekkal kenn ku dul Sénégal liggéeyal Sénégal tey suba ëllëg ak gannaaw ëllëg maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm seen taxawaay seen cofeel ak mbëggeel bi nga xamante ne moom ngeen am seen doom mbëggeel bi nga xamante ne moom ngeen am sur la coalition Bokk Gis Gis Liggéey mbëggeel bi nga xamante ne moom ngeen am si le président Pape Diop maa ngi nuyoo maa ngi gërëm ñëpp waaye nag su ma gërëmee gox goxaan yi nga xamante ne ñoo ñu wuy si maa ngi gërëm suma yaay yu baax yi fi nekk te ñu yar ma suma mag yi fi nekk te ñu yar ma ak su may rakk ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal génération ak sama waa koñ maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp dëgg la ñaan nañu yàlla gagné élection yi waaye sama centre vote ngi nii El Hadj Amadou ci am école HLM te su ma defee transfert de vote jógee croix ñëw fi samay dëkkandoo ma ko ñaan ñama bokkal génération ma ko samay yaay ñan ma ko sumay papa ñaan ma ko ak ñi ma bokkal génération ma di ñaan am nañu bokk bennoo bokk yaakaar fii la ñuy voté la muy fi soxla mooy cent pour cent le 31 dimanche à 18 heures incha allah rabi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf